yenn yi ayca léegi nag honorable euh, dafa am beneen loi boo xam ne moom nga déposé avant-hier Birame mu ngi koy wax defe naa ne euh, coow li coow li fan yi loolu yëpp bëri na euh, muy DPG bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy waxtaanee ci dëkk bi bu ñu dellu si waatee tuuti rek honorable ci li nga xam ne moo di loi boobu proposition de loi boobu nga déposé waaw xam nga proposition loi bi dama ko déposé ci temps bi nga xamante ne ni hmm. war naa ko déposé parce que hmm. bu fàttali loi bi loi 2002 la deux mille vingt quinze mai deux mille deux moo nekkoon benn loi organique boo xam ni dañ doon modifier li nga xamante ni booba jamono boobu règlement intérieur assemblée moo fi nekkoon. Mm-hmm. am ay ci poste premier ministre. article 97 ci règlement intérieur assemblée nationale. Mm-hmm. article 98 parce que article 97 mooy wax si déclaration politique générale. ak temps bi nga xam moom la ko yoon may pour mën def ci li nga xam mooy règlement intérieur mm-hmm. mais boo jël si constitution bi mayu ko mayu ko mayu ko délai. Mhm. heure bu ko neexee mën naa ñëw. nga ñëw si article quatre-vingt-dix-huit bi muy wax ci li nga xam ne mooy question de confiance. Mhm. article quatre-vingt-dix-neuf muy wax si motion de censure. Mhm. ñetti article yëpp bi nga xamante ne ñu ngi def loi deux mille dix-neuf quatorze bi dañ ko india àll wutoon. Hmm. ñett yëpp bokku ci. ñett yëpp bokku parce que président Macky Sall bi nga xamante ne wax na nañu modifier li nga xamante ne mooy constitution bi dindi poste premier ministre. buñ ko dindee ci code bu ñu ko war dindi ci règlement intérieur assemblée mais yëmul ci ñetti article mais ñetti article yi mu gën a siiw mais tey boo jëlee ci li nga xamante ni comme tey euh, nga jël règlement intérieur assemblée nationale bi boo jëlee tey li nga xamante ne mooy article soixante bi mais wax na le gros mot de premier ministre te nekku ci woon loolu dañ ko war delloo ci waat ci règlement bi boo jëlee article soixante et un tuddoon na premier ministre te premier ministre nekku ci règlement intérieur assemblée jamono bi ñu toll nii boo jëlee article quatre vingt bi mi ngi noonu. Ah. nekk tuddoon na. règlement intérieur bi ngay rompé. tuddoon na ko. waaw mais nekku si woon kon jàpp naa yooyu yëpp tey. boo gisee ma def ko ba si article 97 bi nga xamante nag moo tax que moo indi alekale ji. Hmm. pour nga modifier article da ngay xool base ba parce que kenn du ni 2019 la ñu ko war a modifier mais 2002 bi si lañ koy ko pour modifier moo tax ñun ñu pour def proposition de loi sukkandiku ci règlement bi article 60 pour déposer ko. bañ ko déposé nag fekk na assemblée tëj ndax le premier la nga ko déposé te assemblée sànq bi ngi tëj la 30. kon section unique bi jeex na. Mm-hmm. léegi lan la ñu war a def mooy il faut que maanaam yeeyu askan wi lëkkaloo ak ñun ñi xam ñooy liberté démocratie franchement ak waa taxawu am 65 députés pour demande président assemblée nationale ñu def section extraordinaire parce que man mënu ma ko. Hmm. wala Benno Bokk Yaakaar am 60 députés. ñoom ñu demande section extraordinaire ñu ubbiwaat ko wala président de la république bind lettre demande ñu ubbi section extraordinaire pour ñu jàll loi de finances rectificative bi ñu war def mois de juillet lii bu amul loi yi kenn mënu ko càmbar. du ngeen liggéey maanaam du ngeen liggéey parce que tëj nañ octobre la ñu ubbiwaat léegi nag ma jàpp ni comme yàlla dogal na Sénégal yi soxna lan ko <coughs> lii tax na premier ministre wax na ci benn tweet tweet ni maanaam moom lii buñ ko deful du ñëwaat ensemble te man war naa ko defar mais pas moom moo tax ma di ko def mais dama ko def parce nekk ci règlement mais taxut moom ma mm-hmm. xam ni bi ñu ko gisee da ngay bind président bu ko defee man du ko def mm-hmm. nekkuma député boo xam ne comme yeewi askan wi xamoon nañ ko à bi ñuy daanee Amadou Ba poste premier ministre mi motion de censure xamoon nañ ko mais binduñu woon pour ñu defar man ma xam ko nekk doomu daara bind ko fa ñu def ko kon jàpp naa ni bi ma ko defee ba noppi tamit ñu ko war a yëpp leen nañ ko ñetti groupe parlementaire yi ak non inscrits yëgal naa leen ko pour que ñu modifié société bi nga xamante ni bi ma ko defee pare contact naa leen pour ñu yëkkati seen tànk pour jóg pour waxtaan tamit yëgal naa leen ko te ñu ngi si waxtaan boobu noonu am naa yaakaar ni fan yi di ñëw bu ñu ubbiwaatee assemblée nationale secrétariat danañ jàll li nga xamante moom mooy mbir mi. comme ça ñu modifié ko.